ba moo tax ñaar dañu jege ñante woo te sore te bu ci nekk mi ngi dellu ci ruux gi ragal ñàkk a tekki ñàkk ñaar dañu jege ñantoo te safaanoo

ñeme yenn ak bëgg daraja du benn nanu ko takk waaw ñeme yenn ak bëgg daraja du benn waaw ki ñeme yenn ma nga làqu ca kullukum raayin wa kullukum masuulun an raayati waaw ki ñeme yenn foofu la làqu ki bëgg daraja nag ma nga làqu ci waalam bi anna afladil afaati xubbu riyaasati wa tarful aati bi dafa wax ni euh, kenn ku ne daañu ko yen bu ëllëgee ñu laaj ko yen ba ba boo làqoo foofu foog nga ñeme yen